yonent bi bu ko neexoon mu ne defale ma la ma kii lan la bëggoon bind su gannaawam naka la adduna doxee mais seen naaxu ma dafa ne ko yow yaa ngi waxoon ne bàyyi nga alquran ak sa sunna kon looy bind lan ngay yaa ngi ko waxoon ñu gis yaakaar gis nga mais ñu wax ko dëgg yaa ngi waxoon ne bàyyi nga alquran ak sunna ngay bind te ñu bëgg du dara mu arrêté ko. sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi arrêté dund. lu mat a lu mat a yonent bi arrêté dund. daal di jóg dem am ñu ne yonent boobu moo ko tax a dem waaye déedéet yonent boobu ko dem. lan bëggoon la gis te ñenn saaba mooy est-ce que ñor nañu wala ñor. parce que ñor nañu ba bu fi bàyyi ko gannaawam dina yàqu wala du yàqu mais lépp gis ko ñetta weerante lépp xam ne mooy sama gannaaw dina am soow sama gannaaw dina am soow ni ni ma fekkee soow li ci ëllëg soow dina ko jëmee ci ma dem ñi kenn doon ko xam ne am na turaas wala xew la tegtal saxaaba yi mu mel ni dafa wér béréb bi nga xam ne danay danay dal ko feebar mënoo julli si jëli sa fan te kenn indi mu ko sax woo ma ko allahu akbar mu dugg si jàkk di ñëpp kontaan yaakaar ni tàng bi bañ ba mu ñëwee ci kër Aboubacar tàggoo te de sama soxna ba ne sunu ko moo ayee dama faa bëggoon na mënu ko def koo tàggu rek mën na def te ñoom ko wér dootul sax wér loolu lañ gëm parce que ba une heure mooy quart une heure mooy quart ci la ko malaayikul moom seet taxaw ci Jibril ñëw seet ko seet malaayikul taxaw mu dugg si ci biir néeg bi néeg ne Aïcha ne ko sang bi malaayka moom mi ngi ci bunt mu ne ko na yegg si Jibril ñëw ne ko yegg si mu dugg si ne ko borom bee ba yónni de day dee salaat dogal bi bu la neexee nga fàq bu la neexee ma bàyyi la su ko damay fàq tuuti rek day ay say day fàq ba day fàq ma yegg si nuyoo bàyyam fay ko woo ko mu ñëw moom jël làmmiñam set ko ndax dee fàtte bi ñu ngi ko bindee ci ñamu aljana ndax daan xel ñamu aljana jémmiñ gi daf daan xen xeñu al xen daf daan métte làmmiñu ndey mu daan xen al xeñu ko ci wetam woo ne ko tey ngay tàqale koog man day baax tamit jooy mu waat ko mu ñëw donc balaa juróom ne ñu ne nga fekk si mu reetaan day xaay sa ne ko looy bul ma jàngal reetaan nga léegi jooy nga léegi reetaan léegi lu xew ne ko du ma firi suma sekkale laay dama ko firi xëy na dana ko ma si te te quelques secondes rek yéen a bi daan defaat Fatou dana tukki dana métti dana yàq dana rab ndax ci taxawoon adduna am ñu doon ko teeru milliards yi at teeru ba jeex ndaje ba ma des ndajam saayir moo xam ne dañ taw ba taxa taxaw tabaxaatu adduna saxaaba yi gërëm ñi dox ñi loxañ ñi tax kenn rek moo fa nekk ci nit te Seydi Ababacar Sy moom rek moo fa nekk nit keroog moo ñëw fekk Seydina Omar téye jaasi ne ci biir jàkk yonent bi ne ku ne Mouhamed faatu na ma dëkk sa bopp ku ne Mouhamed faatu na ma dëkk sa bopp mu bokk Seydina Aliyu lafañ fekk Seydina Ousmane lu kenn ay yoon yi daal ci biir mbedd bi xamul fu mu jëm Sida Aboubacar nee na picc yi am a tàgg yu may Aboubacar nee na maa ngi tëstu dugg sama kër soxna sa ayewoon mais ma gis picc yëpp naaw jëm la ma jëm maa war lool picc yëpp naaw jëm la ma jëm mosuma doon déglu dina picc yi boo romb rek yëpp jëm la ma jëm doo ko dégg sagal bu sap déggloo benn rab te dina calme ba suuf si boo ko tibboon da ko téeri day mel ni comme ndox muy dox dëgg ay kër surtout dañ ay ay kër ma takk bagage déglu ma dina ba may takkee bagage la waa de yegsee ba mu ñëwee waxul Aboubacar yonent bi fàq la dafa ñëw nit ñi jëlee Aboubacar xam ne yonent bi ndax mënu ko mënul wax yonent bi Pape mënu koo wax mu ñëw teg Omar dox dox biir la naan su dee Mouhamed fàtte na ma lu ne fàtte na ma Aboubacar ñëw mu si jàkka ji baalewul leen baalewul Omar dafa dugal nañ bay Aïcha yéen doomam ba nga xam ne fa la yonent bi tëddoo fekk ñu ko sàng mu jël te jël njoor ga wër nga ci kanam gi kooku mu mel ne kuy dund mu ne ko dit xajaata noona ne ko yaara sa dund yaara sa dee maam Alaaji Malick nee na yaa Sidiq yetti yaqoolu lahu xattita yaa badru si haalek wa salaam yaa dikkale Sidiq Abubakar Sadiq yàq bi muy jooy wa yaqulu loo mu naan kattita kattita xay gàttal moom la waaxaale woo naa sama tiitaange Abubakar woo naa sama tiitaange wax sa dem ni woo naa sama alxuraan doo ñàkk daal di génn sàngaat ko génn mu ñëw ci biir jàkka ji fekk naa ma taxaw ci la jaasi mu ne ko alxuraan toogal yonent bi dugg ah ba bokk dugg taxaw ci dund ay yàq ko yàq yàq ko man kaana ya'budu Muhammad bayna Muhammad kan naak wa man kaana ya'budu laa bayna laa hayyun laa yamut yàq ko yéen nit ñi man kaana ku nekkoon ya'budu di jaamu Muhammad Muhammad bayna Muhammad Muhammad faatu na waaye ba man kaana ya'budu laa ku nekk jaamu yàlla yàlla ma ko doon jaamu fa inna la hayyun laa yamuut yàlla ngi dund du dee ba te daa xamal ne dafa mel ne ay docteur la dafa mel ne mosu ko dégg dafa mel ne mosu ko dégg mosul dégg ay saxaba yi yëpp daal di àndandoo ndeysaan àndandoo toog déglu ko kii rek moom rek moo ko àndal jël naa leçon bu rëy sama rakk ji ba Abdou Ndaw man Aboubacar Diar moom tiitul parce que maqaam siddiq yi ci la nekk te maqaam siddiq yi ko da nekk loolu doo tiit moo tax moom tiitul daal ba booy seet da ngaa yaakaar ne sax yonent bi faatuwul te Aboubacar ndax ndax sagoom fekk maqaama ba mu nekkoon moo laaj am sago ba xam ne da nga dina ma réglé xew sarakuma senn ñuy seen nangam saxaaba yi ana kan mooy remplacé yonent bi bala ñu ko tuddee yonent bi may bi may faatu saxaaba yi amuñu imaam amuñu imaam allahu akbar tànnul imaam përëm imaam keneen di Mouhamed a ah, gaañoo keneen saxaaba yi amul imaam amatul ko leen ndax boobu loolu laa ko bëgg a jël dañuy daje wax kenn ku kabare am ñaar ñëw taxaw ci sa gannaaw julli maa nga dem sa kër julli mais am ban islam ci lay waxtaan islam bi yàlla bi may gàddu moom yonent bi saxaaba yi amuñu imam ñuy daje ne kan muy imam yi kan moo leen a jiite ñi Abubakar di Abubakar ñi Omar ñi keneen ñi keneen ñi keneen alors ci lañ nekk danañ koy ban sax yi danañ dem jaaxle seet ki ñoom na ngay bëgg a tànn ci imaam te ñun waa Quraysh la waa waa Ansaar la Aboubacar Omar yeetu fa bañ ko déggee ñëw ne leen yéen mun leen nekk mukk imaam imaam Quraysh lay nekk yéen wala ci muhaajiriin lay nekk mais du nekk ci Ansaar yéen nag janaay sunu yi su cee ndeysaan Seydina Omar Aboubacar foofu la defee lu mat sëkk taalal loxo Seydina Omar Seydina Omar def Omar weerante gal yonent bi weerante alquran nga am dëkk taalal la sox ma tal loxo ma jaayante yow ngay xarit Omar ne ko man mii maa juum maa la waroon maa waroon jaayante yow ndax Mohamed ban ngay jiite ci kanam Mouhamed yow la Mouhamed tànnoon nga jiite kon na nga day yoon doy yoon Mouhamed ba nga jiite leen ci kanam Mouhamed trois jours man doyee nga ma ko tàggalal ma benn kër lañ doon kër lañ doon mais muy dëgg bu yéene muy dëgg bu yéene kenn lañ xam kan mooy Mouhamed Mouhamed dund na dir bu yàgg mais ba mu gaañoo ba mu gaañoo rab yi dañu mel na rabi àll yi rabu àll yi dañu mujj ñëw ci dëkk bi Madina Munawwara Alaaji Maalik ne kaanat jamaadaat kaanat jamaadaat kaanat jamaadaat waxtu naa wéy ba mu ne jamaadaat yi jamaadaat yi kaanat من ساعة فمن آمن بالله ربه موتا نينا جماعة داتي نينا وكما سك عربي نينا جماعة داتي سيبو كانت جماعة داتو من ساعة mu ne fa kay fa man amana billahi naka naka ñi nga xam ne ñoom nit lañ ñu gëm ñu doon jaar gannaaw jamaa daal yi ñoom ñu doon gàdda jamaa daal du min wu gàdda jamaa du saadihatan fa kay fa man amana billahi rabbi nee naa la trop nag dëgër xol moo tax may mën nekk ci sa biir yàlla xam ne dama dëgër xol moo tax ma mën nee naa la trop yàlla yàlla nañu wàllu bëgg ñu am yàlla nañu ko wax euh, euh, gis naa benn man bu daan nekk li sa fàtte yi danaa ku man de géer ku man de géer géer géer sëgg baa ngi fàtte ñu koy allahu akbar ne li tax mu ne teel a nit ñi xam kan mooy loolu mooy tilli yéen ñëwoon ca dëj ba teroo ba ay tilli rañaane nañ ca àll ba ñëw ci biir dëkk bi da dokk mbedd ba dina da rañaane ko dina da seetlu ko dina mara yam amoon dañu bàyyi lekkal lekkatuñu mënatuñu lekk mënatuñu tubaasu gi saa bay préparé yonent bi yëpp loolu moo fa xew ba tubaasu yi yeggee ñu fal Aboubacar xalifa te leen door a ñëw wax dëgg di sànq ma def te leen door a ñëw wax dëgg te leen door a waajal yonent bi sang ko te waxoon nañ ñu koy sang mosuma gis ko ko gën a baax saxaaba yi dañ ko daan laaj ba ñu bàyyee ko ku lay sang mu ne diw diw ak diw su lay gasal mu ne diw ak diw ak diw ñu fàtte ko laaj nag ban façon tax lañ koy defal ñu fàtte ko boole laajuñ ko ko mais bala nga xam ne moo góore Bilaal ibnu Rabaax moo mel nam la woon Aboubacar boo ko gënee jox ko yonent bi Bilaal amul seet ci Quraysh amul seet ci Ansaar Éthiopie nit ku ñuul la woon yonent bi def ko loo xam ne occasion la ko mu wax ko ne Bilaal suma gaan na nga rooti ndox sotti ko ci sama xabru bi tooyalal ma bi ba mu koy xet mais loolu du xaqiqa du moo bëggoon seet bi bilaal cër boo xam ne moo koy mën a def ci bàmmeelam mais du xaqiqa concerné wul ku dul yonent bi ak ku ko bëgg ba ko roy fa yonent bi mais du sunna